maam moo ma yónni wàññi waruma ci benn yoon Sénégal dénk leen ma seeni nopp ma sàcc dee leen festival Keparu Maam yegg seeti na yéen ñi na mu ree yéen nga xam ne fu ngeen tollu da ngeen di mer yéen ñi bëgg seen bañ di feeñ yéen ñi bëgg xaxataay ba jàll yéen ñi na mu jàkkaarloog seeni artiste ku ne xam ne ne artiste du bàyyi yoonam fu mu nekk ay <laughs> waaye dina fa bëri lool mu war a nekk le 24 le 25 ak le 26 juin 2022 festival bu mag bi festival bu ñëpp bëgg festival bu ñëpp yàkkamti festival bu ñëpp namu artistes yi bëggal ko seen bopp ni festival Képparu Maam dégg nga karawaanu wëtir ñu dàq fas yi xale yi topp ci koñ yi daal di riir mbedd yi festel yéen ñi namoon ay spectacle yu amul fenn ci Sénégal yoo dul gis fenn yu neex ba jéggi dayoo yéen ñi na moon dem ci prison yi daal di safon teg nga fa nekk jox leen i ay cadeau na moon lakk jën daal di mberes ko ba mu def ci xeetu saf-safal eh, bés bi dañu koy safal ñu daal di Sénégal yëpp ñi ci toute la population de Rufisque ñi ñëw ngir teer gan yi niñ ko daan defee di ci maire de la ville Mousse Omar Cissé di woo les maires de la commune wuñu kenn di ci woo ministre de la culture di ci woo seen

lii lañu wootee